ingénieurs yi ànd ak seen ministre Mansour Faye maa ngi koy nuyoo ñu dem saytu ba gis ndox mi fa mu nekk ñu dem jëli ko fa mu nekk fii ah di juróomi forage juróom benn war a jóge ca dem deux cent vingt ci suuf ñu jël ko interconnecté ko def ko ci fi ñu ko war a def ci mbiri conduite def liggéey génie biñ ci war a def di ko yóbbu ndakaaru wante li nga wax loolu laa d'accord bay sa wewu tànk fàttewuñ leen population Diender président Macky Sall jox na instruction gouvernement bi Mansour Faye ngi nii toog jot na instruction yi mu wàcce ko ci SONES forage bi ngeen amoon pour liggéey forage boobu dinañ ko réhabiliter président ne ngeen dolli ci forage bu bees pour jandeer te forage yooyu mooy ndox mi nga xam ne moom la jandeer daan utiliser boo bo bas boo boo demee vingt mètres trente mètres jot ko bokkul ak bi nga xam ne nag ca suufa suufa suuf la ko suñ boroom làqoon boobu moom la ñu génne nii te day dellu si jandeer ndax investissement huit milliards bu toll nii ku ko gis ah di nga ne mais huit milliards yi lan mooy avenir bu fekkee KMS 3 pare na suba bu fekkee ndakaaru mi ngi jot cent mille mètres cubes yoo xam ne ñoo ngi joge ci géej gi dessalement eau de mer bu boobaa lii luñ koy doyee président mu ne PSDAC bi ngeen di dégg di programme spécial Dakar liñ ciy réaliser pour gox-goxaan yooyu localement pour ñoom la ndax deux mille vingt deux mille vingt et incha allah fi ak ñaari at ba ñett lay jógee ca KMS usine bu bees bi deux cent mille yu bees di jëm ndakaaru boo ko booleeg lay jóge ca géej ga ca Mamel ñu liggéeyaat ko ba nit man koo naan boo ko boolee daanaka da nga di nga couvrir waa Dakar région de Dakar triangle

gis lam fa def ci pôle urbain bu ni mel wala bu ko ëpp doole lay tabax lagros Rose fii ba Lac Rose suba lii la ak ca dem donc seeni besoin tey ak seeni besoin suba inshallah allah na ci seen xel dal ndax gouvernement bi li ñuy président di wax mooy liggéey pour askan wi te defe naa ne ñoo ngi ci ah kuy liggéey nag il faut ñu lay jàmm mais ñun ragaluñu 96 ba 2012 260 milliards lañu duggal ci financement ndox ci 96 datu réforme 2012 260 milliards lañ fi duggal ci réew ah bi président Macky Sall ba 500 milliards le dougal entre 2012 et 2018 pour régler problème problèmes ndox ci réew